daw leen seetaani série bi musuma gis série bu neexee nii. lu doy waar moo nar a xew ci épisode 26 série Bété Bété noo bande annonce bii noo suba dina neex dina yëngu mbokk yi laataa ma ciy ñëw maa ngi lay ñaan bu dee gan nga ci page bi bësal abonné laal cloche notification ndax mboolem vidéo bu ñu dugal ngeen mën see jot ci lu gaaw pour yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg bokk ci groupe Bété Bété mën ngeen ñu contacter ci numéro téléphone bii ngeen di gis mbokk yi. tey boo doon conseil Dieynaba Tall ani lan nga koy conseillé dëgg la mbëggeel dafa neex te gis ki nga bëgg bu bëgg la dara dàq ko mais est-ce que mbëggeel jar na nga nekk ci kër goo xamante ni dundoo fa bànneex fii si senegal ku nekk xam na ni ne goro bu jigéen lu am sens la ci biir néegu sëy mais ci jamono boobee sa goro mu ngi lay teg lu metti loo xamante ne est-ce que nga delluwaat gën na mbokk yi damay laaj tey bu doon en tant jigéen lan ngay xelal Jeyna Batal wala bu doon yow la nga divorcé muñ métti boobu moo lay gënal fuuf nga daal di delluwaat foofu ku ci nekk mën na ma wax sa xalaat ci commentaire yi ca commentaire ya